maqamee suuf biya lay doon hmm. moo tax maqam bi moo ko tax a jóg hmm. dañoo nekk ci adaabu manasikil hajji hmm. abu saydin feeñ fa def waade yu ñor ñor de lan mooy haj makka maqaama la bu xam ne lépp rek dëgg la amul benn mbuurante daal xëy na day sàmmanteeg fala rafasa hmm. wala fusuqa hmm. wala jidaala fil hajji hmm. waaye maqaama bi amul benn mbóoral te yëpp dëgg la rek yëpp dëgg la rek yëpp wax yu ñor la mu ne hakka nettali na alxaaris ibnu hammam qaal mu ne kuntu nekkoon naa fii hom waani sabab ci njël benn ndaw wara yaani nay si ak njël benn dund allu baabu daa ji jamono bi may doon ndaw. Mm. kuntu nekkoon naa fi on tuwaani sabab ci njëlbéen ndaw. waree xaaj naa si mm. ak njëlbéen dund àll ba bu raaji sell. Mm. dama nekkoon aqali di bañ alikti naana sax. bilxaa bi ci gol. toog fi ma dëkk rek toog fi ma néeg rek. kutuma génn jëm fenn. bi may doon nangu ma ko woon. wa dama daan soppu. alin di laax a génn hmm. minal xiraabi tukkee ci mbuus yi hmm. léeg-léeg ma génn dëkk bi hmm. mbaa génn réew mi seeti beneen dëkk seeti beneen réew dama daa neex leen mi ngir xam guma xam ne an na safara naka tukki yun piju dana mu feesal asufara ay mbuus wa yun piju te dana ngerte asafara tuubu ndax xam naa ne tukki baax na mm-hmm. juróomi njëriñ yiñ cee wax mm-hmm. du dañ da ci nekk mm-hmm. te yëpp soxla naa leen taxarrab anil awtaani fi talabil ola wa saafir fa bil asfaari xamsu fawaidi danu wax ba taxarrab anil awtaani fi talabil ola wa saafir fa bil asfaari xamsu fawaidi tafarruju hammin benn ngoo waktisaabu maisatin ñaara ngoo wa ilmun wa aadaabun wa suhbatu majidi léeg-léeg mu xam lu la jaaxal lool waaye nga génn jaaxle ga teggee koo ca léeg-léeg ne fi nga nekk dara waaye nga génn daje xéwal gu jagal sa mbir léeg-léeg itam loo xam ne dafay nekk xam-xam. Hmm. buy de bu lay jëriñ. fekk hmm. yaa ngi dund. Hmm. léeg-léeg itam nga génn. gis mbaax bu la jar roy ba faw mu yar boo jëlee ci dox. léeg-léeg itam nga génn. mu jural la xamaale boo xam ne. fekk yaa ngi xamanteeg moom. da jëriñu ci xamanteeg moom. seetlu bu baax a baax. yëpp ay njëriñ la. yi xamee ci tukki. taxarrab anil awtaali. fii talabil ola wasaafir fa fil asfaari xamsu fawaidi tafarruju hammin waktisaabu maisatin wa ilmun wa aadaabun wa sohbatu majidi mu ne xam gu ma xam lool te toll ci di ko def dafa taxoon bokk ci ñu koy def moo ma gën loon di ko neenal waaw li ngir xam gu ma xam ne am na safara tukki yoon feju dana mu feesal asufara ay mbuus mm-hmm. wa yoltiju te dana mu ngerte mm-hmm. asafara tuubu mm-hmm. wa muhaqaratal watani tëqoog dëkk tanqiru day loj day maanaam day gor day dagg aqru mooy dagg xelal ju du demat al fitanaay xel nekk ci benn barab rek dañoo kumpa lenn lenn lenn lenn barab boobu soo ko xamee lool hmm. day nekk sa kii day ci beneen barab hmm. nga sa yeewute mënoon a yaatoo ci àddina man hmm. na jaa bañ na koo bañ yaatoo wata te dana mu xeet man ka nga xam ne xatana sax na mu te itam dafay waral dafay waral eh, bu yàggee rek ñu yëg ci yow la xeet wa toolu muqaamil fil hayyi muxliqun mm. li dibaaji xëyhi mm. faxtarib tatajaddadi mm. heure buñ geesoo rek janoog yow heure buñ geesoo rek janoog yow dana dem ba duñ xamaati ki nga doon loolu moo tax jar na léeg-léeg nga génn ne yaram boo ñëwee xeese wax wa tuulu maqa wa tuulu muqaabil mar'i fil hayyi muxliqun li dibaaji xëyhi faxtarib tatajaddadi ah heure bu ñu geesoo rek janoog yow heure bu ñu geesoo rek janoog yow day dema dem bu waral duñ xamati ki nga doon moo tax léeg-léeg nga ne ñëwee dëg ko yaat moom baax na alam tara anna shamsa zidat mahabbatan ila nnaasi an laysat alayhim bi sarmadi jant bi lu ñooy yàgg yàgg Mm-hmm. dégg goo ku ne jant bi sàppi na ma mm-hmm. li ko def mooy bu fi nee yow xendoog yow rek mm-hmm. dafa def yereng yereng yereng bu ëllëgee bu dikkee di ko xeer dafa tax alam tara anna samsa siidat mahabbatan ila nnaasi an laysat alayhim bi sarmadi waa jant bi yàgg na fi mais déggoo kenn bi sàppi na ma waaye li ko def du ël boo geesoo gis ko bu ñëwaatee ëllëg rek di gan gu bees hmm. masa du la masa tàppe de la wax dëgg la bu baax a baax waaw wa toolu muqamil mari hmm. fi l xayi muxliqun hmm. li dibaajatayhi faxtarib tatajaddadi alam tara anna samsa zidat mahabbatan ila nnaasi an laysat alayhim bi sarmadi la bu baax a baax di tawsil leen mii ngir sama xam ne anna safara tukki mm. yan fiju dana mu feesal mm. asufara ay mbuus mm. wa yun tiju te dana mu ngetteel asafara tuufu wa mu axaratal watani tëqoog dëkk taaxiru dana dagg mooy dana loj alfitana ay xel wa taaxiru te dana mu xeeb man ki nga xam ne xatana sax faajaltu ma wëndeel xidaa al istisaarati hmm. dañu béyi diisoo hmm. ah, ah, ah, mbatti may sari diisoo hmm. waxta daxtu ma kocci sinaada listixaarati dañu béyi listixaara waaye lu bëgg-bëgg dem ndax yaakaar njëriñ ci demin nag li may dem dama ko teg ci yoon dama jëfandikoo listixaara te tey tey tey dama jëfandikoo diisoo su fekkee yow da ngaa diisu ka nga war a diisu man ngaa bañ a perte ci la nga dugg su fekkee da ngaa jëfandikoo listixaara man ngaa bañ a réccu la nga dugg maa xaaba man istaxaara wala nadima man istaxaara ah ñu ne ñaare boo jëfandikoo listixaara ci mbir perte man na la cay bañ a fekk boo diisoo ko war a ci mbir hmm. réccu mën na la ca bañ a fekk hmm. maa xaaba man istaxaara hmm. wala nadima man istasaara moo tax ma damay jëfandikoo istisaara ak istixaara waa jaltu ma wëndeel xidaaxal istisaara ti banti may sari diisoo mooy ma diisu ñi ma war a diisu ci mbir waxta daxtu ma kocci sinaada listixaara tajubéyi listixaara ma jëfandikoo listixaar hmm. bu dudoon dara itam sunna la hmm. jar na di def hmm. kenn ci sahaaba yi ma alayhi wa nim ñu daan jàngale alquran noonu la ñu daan jàngale listixaara mooy kenn ci bu hittewoo am mbir na julli ñaari rakk mm-hmm. su paree mu jàng ñaan gi mm-hmm. allahumma inni astaxiruka bi ilmika mm-hmm. wa astaxdiruka bi quratika wa asaluka min fadlika al adim ba mu àgg rek kadug waaw su ma tajasu su ma tajasu topp ma dogale ma ma dajale su ma tajasu topp ma dajale mooy ma dajale jaasan dogu mm-hmm. asbata gu gën a sax menal mm-hmm. hijarati ci doj mm-hmm. ba ma diisoo ñama war a diisu ñu rafetlu ko ma jëfandikoo listixaara ñaan yàlla mu tànnal ma di gën te pas-pas bi ne ci man booba la ca dogu ne kenn du ma ko tere su ma tajatu topp ma dajale jaasan dogu asbata bu gën a sax menal hijarati ci doj yi waaxantu ma héeg dongo mm-hmm. ila sahili saam jëm ci tefesu taa saam di mm-hmm. tijaarati ngir yaxantu mm-hmm. may damay dem saam su ma demee defa bu tijaara falamma xayyamtu ba ma sampee suma xayma bi ramlati ci ramla booba laa soobu ci yoon wi dem naa ba ramla muy ab barab ci barabi saabi waal xëytu te ma sànni bi ci ram la. xasal rihlatiha laxas. xam ne ma dikkee ne naa léegi àgg naa. fi mu ne xanaa toog toppatoo ma fi indi moo def. bi loolu amee saadatu dajal naa bi ci ram la. rikaaban ay gawar yoo xam ne tuaddu dem na leen xalu li sura ngir rañaan. wari xaalan ak laxas mooy ak i teg tu sëdd yooyu dem na leen takk. ila ummil qura jëm mag. bi ma yëg feeram la ba tàmbali daal mm-hmm. dama fi gis ay gars yoo xam ne ñu ngi préparé mm-hmm. pour ne dañuy dem mm-hmm. ñu ne makkatal mukarrama lañ bëgg a dem saa daftu dajal naa bihaa ci ramla rikaban ay kawar yoo xam ne tuaddu def na leen xadu li sura ngir rañaan gis naa ay waruwaay yu ñuy toppatoo yoo xam ne seeni waram la ci lañ bëgg wari haalan ak i teg wala ak i bagage su hmm. sodd yooyu dem na leen takk ilaa umil qura jëm makka hmm. maj da ay bagage yi ñuy takk hmm. yoo xam ne seeni waroom nee nañ makka ki umul qura lañ jëm faasafa dal di riddi bi ak man rihul xaraam ngalawal tatak cofeel nem se gu tat nag ca barab yu sell yooye dikkal ma nag waxtaaja dal di jéqeeku lii ñi xaal ma sawqun sopp nim si ilal bayti jëm ci néegam yàlla bi hmm. alxaram ba de bu ñu hormal hmm. mel ni daal na xel mi nekkee woon saam hmm. ba ma dikk fii ci ram la xel mi walbatee na ko noonu pour ma dem makkatul mukarram faa safar riddi bi ya ak man rihul xaram ngalawu cofeel waxtaaje jeqeeku lii ñaal ma sawqun cofeel ilal bayti jëm ci néeg bi alxaram ba de bu hormal fa samamtu ma naskaal naaqati sama gélém hmm. booba laa dellu jagalaat sama bagage pour wat sama gélém hmm. wa nabastu ma sànni olaqi samay gàllankoor hmm. yi nga xam ne man na may gàllankoor muy halal ju ma fi amat mm-hmm. ay jëflante yu fi war a régler mm-hmm. yooyu yëpp ma jox ko gannaaw mm-hmm. wa alaaqati ak sama hajuwaay ak yi haju ci man lu mel ni soxna si ma fi amat wala xale bi may liggéeyat ak yooyu yëpp daal ma jox ko gannaaw wa qultu li daimi aqtasir fa inni mm-hmm. sa axtaarul maqaam maqaama ala almuqaami mm-hmm. wa unfiqu ma jamaatu bi ardi jamen mm-hmm. wa adlo bil xatimi an ilhutaami ñi may yedd nii laa waxee ñoom rek wa qultu ma wax li daimi ñaan ñi may yedd ki may yedd naan ko aqtasir sagul ñi ma naan ah yow ñëw fii pour liggéey démb yi nga de ko fi bàyyi naan damay haji màkka te mën naa am joxoon nga farata bi wala mën nga toppatoo liggéey beneen benn yoon nga dem ñi mm-hmm. may waxalul dama leen ne mbir yi daal mm-hmm. ma ñor ci laa ne mm-hmm. baleen ma ci rek bu xul sama wax ne day mi ñaa aji yedd sama ne ko aqtasir sagul bayil yedd yi fa inni man axtaaru xasinaa tànn al maqaama maqaam ibrahim alal muqaami ci sax fii ci ram la toog gi ngeen may wooye taxaw ci maqaam ibrahim julli fa ñaar rakkay wët moo ma ko gënal woon bi ko dundule ma jamaatu li hmm. hmm. hmm. ma dajale. bi àll bi jameen ci suufa Musdalifa. Musdalifa mooy jamoo. alal ji ma dajale. fere ko ca Musdalifa. moo ma gënal. de ko téye fii ci Ramla. waaw loo danaa niso. bil xaqimi li hmm. hajarul aswad anin hmm. anin hutaabi hmm. warit poñatam haddina sala poñatam haddi may war dajale bi su ma taxawee hajarul aswad mooma ko gënal waas lo danaa hajarul aswad anin hutaam warit poñatam haddina su ma tazamtu topp ma natu maaru xatin ànd ak setti ma ànd ak am mbooloo moo xam ne kënnu bi guddi lahum ñaar na leen fi seyri ci dox mm. jariyatu seyri daw ak yolnde mm. loolu laa ko teg jar bëtu laa gis mu bind mm. xanaa bu ñu paree ma se sori si ba xam wa ñaar na leen ilal xayri ilal xayri jëm ci yiw jariyul xayri daw ak fas bu ñuy dox daal dox bu gaaw a gaaw te ñàkk yëngat la ñuy dox dem bu neex la ñuy demee te ñu am ci lu baax la falal nasal dañu bay na idlaajin ci diggante rañaan hmm. mooy dox guddi hmm. wata wiibin ak sippirlu hmm. mooy dox gud dox bëccëg mooy taañaan wa ijabin ak gaaw dégg nga wa taqribin xeetu dox la moom itam gaaw la di nga ko baax a ñu ngee dem de ilaan xabat naa ba may ñu ay dil mataya loxoy waruwaay yi bi tuhfati ci may mm. fi isaarinaa ci suñu jotal mm. ilal juhfati jëm ci juhfa mm-hmm. ci dox bi lañ nekk yëguñu dara ba àgg juhfa bi nga xam ne mooy miqaatul ihrami li ahli saam mm-hmm. muy loo xam ne dañoo kontaan mel ni teraanga la mm-hmm. juñu suñuy war waay defal ilaan habat naa ba may ñu ay dil masaya loxoy waru way bi tuhfati ci may tuhfa mooy loo xam ne danga koo jox nit mm-hmm. ala wajhil mabarrati wal ikram mm-hmm. fi isaari naa ci suñu jotal mm-hmm. ila juhfati jëm juhfa fahalal naa ñi dal de wàcc fahalal naaha ñi wàcc juhfa bañ fa àggee ñi ndax mooy miqaatul ihram li ahli sam ñi wàcc juhfa mutaahibiina de way wàcc lil ihram ngir harmal ñii waaj pour harmal hmm. mu tabasirina daway béglante hmm. bi idrakil maram ci jot càkkute hmm. ñu ñëpp ñu kontaan gis ne xewal la yaakaar la falam yëkku nekkul illa an anaxnaa lu mooy suñu yësal bihaa ci juufa arraka iba waxatat naa ak suñu sippi alxaqaay ba gafa kay fenk na alay na ci ñun min bayni ci diggante doj yi sax suñ jëmm dahil ihab bu daal di fenk daal bi ñu àggee daal kenn duñu yi daal yësal gile mi yi lañ fa am foofu rek am ku ci diggante doj yi moom nag yaramu neen la def waaw falam yëg ku nekkul ilaat anax naan dara ñu yësal mm-hmm. bihaa ci juhfa arrakaiba gawari mm-hmm. wahatat naa te ñu sippi alhaqaiba gafakayi hatta mm-hmm. talaa ndare penkan alayna ci nun tuuti rek moo def min baynil hidaab ci diggante doji saxsun jëmm dahil ihaab bu daaji feeñ ci der wootam yu naa di mu ngi xoote de mu ngi xool nit ñi ni yaa ahla sannaadi ay mm-hmm. e yéen ñun mbirim penc mm-hmm. halum ma kaay leen mm-hmm. ila maa jëm ci li nga xam ne yun ji dafay musle yow ma tanaadi ca bisa foo an teba tey ñun ñëpp yàlla moo ñu tax a war nañoo mën a dimbalante ci yàlla tegtalante bi nga xam ne fi la mucc di amee bi yomal xiyaama jotee kon kaay Mm-hmm. ñu dajee waxtaan mm-hmm. fan xarata mm-hmm. dal di gaaw ilayi jëm ci moom alhajiju hajkat yi wan salatoo ñu génn jëm ci moom wax safoo ñu bi ci moom wan salatoo te ñu cellal ba mu waxee loolu nit ku nekk la ko ca day yomb ñëpp bàyyi lañ doon def ñëw di ko déglu falam maara ba mu gisee taasufahum seen ak dajee xaw la woo ci kéw ngam bi mu gisee ni nit ñi dajee ci peggam wasti'daamuhum ak seen ak màggal xaw la woo waxam mel ni waxam ji daal sax na nit ñi bi loolu amee tasal na ma yéeg na ihdal arkaam leen ni barab yëkkateku yi ak kama mooy comme lu mel ni janj xam ne dugg du dëgg-dëgg dafa yéeg barab bu xam ne taxul mu kowe waaye dana tiim ñi ba muy wax nag mm-hmm. nit ñi dañ ko dégg mm-hmm. su ma ta nax naxa topp mu xaqar meku mm-hmm. da aji tàmbali lil kalaami wax waqaal mu ne yaa masara bu jaay ba mu àgg kon ñu jàng li ma xamal bi lépp waxi dëgg la yëpp lépp waxi dëgg la dañoo wax ne dañoo dajee ci yàlla kon nañ laante biir mu ne yaa maasaral hujjaaji e yéen mbooloom way haji annaasi li na ñere way gaaw minal fijaaji tukkee ci yoon yi fajju yoon wu jaar ci kaw doj yéen ñi bayee koo fu ne ci wàlli àddina bi dañoo ne da ngeen a hajsi mm-hmm. atanqiloona ndax yéen ndax a ngi xam mm-hmm. maa li nga xam ne hmm. tuwaa ji woon da ngeen jàkkaarloo moom hmm. ma yéen a ngi xam li hmm. man ak jëm ci kan te a ngeen jublu ma xam ngeen ki leen tax a jogam atanqiloona ndax yéen a ngi xam maa li nga xam ne tuwaa ji woon da ngeen jàkkaarloo moom ndax yéen a ngi xam li ngeen seen bopp man ak jëm te tawajjahoo na ngeen jublu ndax xam ngeen ki leen tax a jóg am tadroona wala yéen a ngi xam ala man ci kan taqdamoo na ngeen dikk ma xam ngeen kan ngeen di ganamam waala ma ak ci lan tuqdimoo na ngeen song ndax xam ngeen li ngeen engagé m ku doom ci la taqdamoo taqdamoo taqdamoo na bàyyee ko qadima yaqdamu dégg nga iqdaam ci la tuqdimuuna bàyyee ko mm-hmm. ataxaaluuna da ngeen jortu ne mm-hmm. annal hajja naka haj mm-hmm. woo moom haj ixtiyaaru rawaahili mooy tànn ay gëléem rek waqanul marahili ak dagg ay marhala ay diggante rek wattixaadul mahamili ak jàpp ay tegi mahmal wa iqaaru sawamili ak diisali gëléem yusuf xaj duun mooy xam sa gërëm goo xam doole rek mm-hmm. de dox deyandoo xàll ak fanaan xàll mm-hmm. nekk ci sa teg goo mën a yàgg mm-hmm. xam bagage yu bëri yoo saf sa ne mooy xaj a taxaaloo ne ndax da ngeen jortu ne an nal xaj da naka xaj woo moom xaj ixtiyaaru rawaahili mooy tànn ay rek war di dem waqarul marahili ak dagg ay diggante wa ittixaadul mahamili ak jàppaay tegi mahmal wa iqaaru sawaamili ak diisal ay gëlëm yu ñu sopp am wala da ngeen jottu nusuka naka jaamu woom natul ardaani mooy ñoori ay loxoy mbubu fu tiire way ndawul abdaan ak songong songong la ay jëmm Mm-hmm. mu faaraqatul wildaan mm-hmm. ak tàggoog ay doom mm-hmm. watanaay ak sori anil buldaani walis dëkk yi wala da ngeen ko ne jaamu gi lim do mooy futti sa mbubu songong loo sa yaram sori say doom sori sa dëkk am ta zun wala da ngeen ne ana nusuka naka jaamu hom nadul ardaani mooy ñoori ay loxoy mbubu futti yire wayin dawul ardaan ak songong loo ay yaram te dem ak dikk di daaw ak di daaw a toog. wildaan ak tàggoog ay doom. Hmm. watanaa yaa sunaanil buldaani walis dëkk yi. Hmm. kallaa déedéet wallahi. Hmm. li ngeen ne mooy jaamu. du jaamu de. bal li fi nekk. xam ngeen jaamu lim do. woo moom. ijtinaabul xatiyati mooy teet bàkkaar. qabla ijtilaabil matiyati. ci njëkk a sàkk waruwaay. bala ngaa wax ne naa aji mm-hmm. na nga leeral sa mbir ba mu leer mm-hmm. wattande ko xaqi nit ñi mm-hmm. wattande yu xaw a di yoon yi ba nga xam ne lépp xaw na yoon su ko defee boo jógee mën a tegee ci yoon booba lay baax de isa hajjajta bi mu mm-hmm. ne soo xajee alal joo tilim fa mm-hmm. nga dem makka rek mm-hmm. waaye lii alhaju dëgg-dëgg andi huloo ko isa hajajta bi maalin asluhu danasun fama hajajta walakin hajjatil heeru yalun waxaba isa hajajta bi maalin asluhu danasun fama hajajta walakin hajjatil heeru la yaqbalu llahu illa kulla tayibatin la yaqbalu llahu illa kulla tayyibatin ma kullu hajjin li baytillahi mabruru dul ko aji màkka rek xam na hajjun mabrur biñ naan laysa lahu jasaun ilal janna loolu moo tax dañoo dalee ijtinaabul xatiya suñu bëggee hajjun mabrur telu la yaqbalu llahu illa kulla tayyibatin ma kullu hajjin li baytillahi mabrur du xaj goo rek mhm. xajjun mabroor la mhm. bal li fi nekk woomam itinaabul xatiyati mhm. mooy teet bàkkaar xabla lajtilaabil matiyati ci njëkk sàkk war waay wa ixlaasu niyati ak sellal héene fii xasdi tilkal baniyati ci jublu boobale tabax ak itam boo xasee bay jóg yàlla rek tax lay jóg Mm-hmm. bañ a am benn xalaat bu lay tax a jóg mm-hmm. boo xam ne mbiru àddina rek la mm-hmm. wayum xawdu taaxati ak sellal topp xenda wuy daane istitaati faam ak man bu man xamee bañ de def def gi na doone topp yàlla rek lay dox nañ ko defee di ko borom sëriñ bi tëralee te sellal ko ngir ki ko santane wa islahul muamalati ak xewenal jëflante yi amaam amal li amalati mm-hmm. ci kanam liggéeyloo gëlëm yu kattanu yi mm-hmm. bala war ne maa ngi génne sama alal di aji màkka mm-hmm. Mm-hmm. da nga ko war a bàyyi xel mm-hmm. ñi nga jël seen xalal mm-hmm. war leen koo delloo ñi nga jëriñu ci seen i njëfandu war leen a fay ñi nga lekk seen i ñàkk war leen a fay yëpp nga war a régler ba xam ne lii nga moom li nga moom nii nag bu ci haji màkka jotee bu ba ci mën a haji màkka nga haji ja waaw waaye la wa moom moo ko ne bu baax la mm-hmm. kii liggéey loo mm-hmm. bay loo nga ko tool mm-hmm. bindu loo nga ko téen waxante ngeen fay nanga fay ko ko kii jël nga otoom nangami faam jël nga palaatam nangami faam waxante ngeen nanga fay ko loola kii àbb nga ko nangam xam na koo xam ne xam na alal alalam a ngi ci sa loxo mm. ndax yaa ngi jëriñu ci ñaqam xam mm. na koo xam ne alalam mu ngi ci sa loxo mm. ndax yaa ngi yoroon matériel am xam na koo xam ne alalam mu ngi ci sa loxo ndax nga ci moom loo war a delloo yëpp da nga ko war a toppatoo su loolu paree def nga moom li nga moom nag ci lañ laa jëloo waaye waaye yëfi jàmburoom yaa sant la ngaa yi su loolu nga moom ida hajajta bi maalin asluhu danasun fama hajajta walakin hajjatil heeru la yaqbalu llahu illa kulla tayyibatin ma kullu hajjin li baytillahi mabrur noonu daal la demee fa walladi gi naa ci buur bi nga xam ne moo tax na wa islahul muamalat ak yéwénal jëflante yi amaam imaal li amalaat ci kanam liggéeyloo gëlëm yu kattan wi hmm. walla di gi naa ci buur bi nga xam ne saraa yoonal na mu hmm. almanasik jaamukaay yi hmm. lin naasik ñaal aji jaamu waar sada te mu gindi asalik aji soobu fi layli ci guddi alhaalik guddi aji lëndëm maa ngi gin ci yàlla mi nga xam moo yoonal manasik yi te itam mooy dimbale nit ñi. Mm-hmm. bu waxtu wu dox jëm si màkka. Mm-hmm. dañ xam yoon ba mën a agsi. Mm-hmm. lum lëndëm lëndëm. lum xàlle xàlle. dañ xam yoon ba mën a agsi. maa ngi gën ci yàlla moomu. ne maa yun xii du seetal. al ixtisaalu sangoo. bi sanoo bi ci baat. sanoo buñ fataaya daal gi mooy mooy baat. bi sanoo bi ci baat. mais in ximaasi ci nuur. bi sunoo ci bàkkaar. tànq baagal ndox ba mu fees hmm. nga xab ko sa yaram hmm. loolu faru tilimu bàkkaar de hmm. mayun xii du setal alixtisaalu sango bi danoo bi ci baat meelin ximaasi ci nuur bi sunoo bi ci bàkkaar wala tan di lu duxemoo tajriyatul ajsaami rafetal ay jëmm bi temps bi atil ci di di si xaqi jàmbur xenu ay tooñ ba sa jëmm diir mm-hmm. boo futtee say malaan mm-hmm. du la taxooyof de mm-hmm. wala tandilu du xeemoo tanriyatul ajsaami rafleel ay jëmm bi tanbiyatil ajraami ci diisalay jëmm ay bàkkaar mooy ci xenu bàkkaar wala tuxni du jëriñ libsatul ihrami koddayal harmal hanil mutalabbisi caaji la la lamboo bil haram yi ci lu haram mm-hmm. yëngu baax a baax mm-hmm. nekk fii di lekk lu haram mm-hmm. dem màkka de lambayoo ko ndirax layu du tax la haram sell wala tooni du jëriñ lisatul ihram yi kab kodayu harmal xanil mutalabisi walis aji lamboo bil haram yi ci lu haram wala yan foo du jëriñ al ittibaaxu ndirax layoo mooy takkaayoo bil isaari ci ndiraxlaay mm. maal istilaay ànd ak xenu mm. bilaw saari ci bàkkaar mm. nekk fi di takk ndiraxlaay dafay dell ki bàkkaar amul wala yu ji du jëriñ mm-hmm. ataqarrubuhu te jegeñee mooy jaamoo mm-hmm. bil xalqi ci watu mm-hmm. maa taqallubi ànd ak jàllarbeku fi zulmil xalqi ci tooñ bindee fi nekk fii di lor nit ñi bàyyi ko fa naan damay watu du te xaqi nit ñaa ngi tegee ci sa bopp bi de wat kawar ba watoo kawar gee di dañ de waaye xaqi nit ñi nga teg ci sa bopp bi loolu du du ko du de wala yu ji du jëriñ a taqarrubu jaamoo bil xalqi ci watu mm-hmm. maa taqallubi ànd ak jàllarbeku mm-hmm. fii zulmil xalqi ci tooñ bi ndéef mm-hmm. wala yarhatu du du fóot atanasuku jaamu fi taqsiri ci jemp kawar dara tamasuki tele mooy jàpp bi taqsiri ci gàttañ lu nekk fii li nga war a góorgóorlu nga rek ko sàgganee taqsir boobu tardeel la lu bari mm-hmm. nga foog ne boo jempee sa kawar mm-hmm. dafay tax tilim booba set mm-hmm. du set de wala yar xaadu du fóot atana suku jaamu fi taqsiri ci jemp kawar dara na tamasuki tilimam jàpp bi taqsiri ci gàttañlu wala yasan du texee bi arafa te ci arafa xayru ahlil maarifa ndare ñooñ maarifa ñi xam arafa ka faa jëlee texe hmm. mooy ka nga xam ne taxaw na fa hmm. bàyyi xel la xam ne hmm. moom lañ ko fa xeebalee wala yëg koo du sellee bil xëy bi ci xëy minan mooy minan man koo xam ne yàlla bu dana mu xemem fil xëy ci njeng taxaw minan te nekk ab loxoraan du tax kenn sell wala yëg du teewee al maqaama maqaamu Ibrahim illa man ndare koo xam ne istaqama jub mu mm-hmm. taxaw ci maqam ibrahim mm-hmm. naan yaa julli ay mm-hmm. kay jo sirru bi dëgg-dëgg mooy ka ca taxawee bi istiqamatin wala yahda du xëy joo bi qabolil hajjati ci nangu haj e man ko xam ne saaxa jéng na mu anil ma hajjati walis digg yoon wi ki nga xam daal moo teg ci yoon wi kooku moom lañ yaakaaral nangu haj mm-hmm. la yaqbalu llahu mm-hmm. illa kulla tayyibatin mm-hmm. ma kullu hajjin li baytillahi mabrur tuuti rek moo mu ne barahima yàlla na yërëm allahu yàlla imraan waay jo xam ne safa sell ma qabla masan ci njëkk doxam ila safa jëm safa koo xam ne balay dox dem safa fekkoon na mu góorgóorlu ba sell la mm-hmm. wa warada te mu root mm-hmm. sariya sa rida sariya ku ñu gërëm ki xablu mm-hmm. suron yi ci njëkk soogum ala da ci sam-sam koo xam ne bala yoo xam ne mu ngi naan sam-sam fekkoon na muy mu mu root ci sariya bi ada mooy dekk sam-sam wa nasaate mu génn antal bi si walis jaxaseem qabla nasimal boo siyi hmm. ci njëkk summi lu ñu solal hmm. koo xam ne yire hmm. fekkoon na mu futti caaxaan wa faada mu bëbbee bi temps bi bi maarufi yi ci njëkkam qabla al ifadati teg ifada min taarifi tukkee ci arafam kon ñi jàng loolu aji màkka xam nga dafa laaj xalal laaj kattan eh, laaj itam xam-xam moo tax muy jàmm goo ne boo ko sottalee hmm. dafa doon ne def nga ngóora hmm. su ko defee nit ñi nag buñ defee ngóora hmm. dañoo am ak nawu ci nit ñi te nafsul insaaniya dafa bëgg nit ñi fonk ko torop waaye loolu lépp nag teewul jaamu yàlla la ñi bëgg nag boo ci nekkee waxtu wu nekk nga def fàttaleku ne sa borom nga ko séqal tax na lépp lu lay jëmale ci àddina rek ñi xaaya la Mm-hmm. dañ la xaye yére mm-hmm. doo ko solati ko daan solee mm-hmm. léegi daal làmbaay gi ak ndirax lay le rek xam ne lu ko nit mën a mooy càngaayal néew loolu rek lañ lay mayal ci àddina la dindi tilim xaye la dindi kawar ak lépp loo xam ne dafay def rafaaxiyee ci jëmm ñi xaye la xaye la itam jima hayala muqaddimatul jima ak lépp loo xam ne bànneex lay indi rek ñu hayala ko pour lan na nga xam ne lii àddina taxu koo jóg su ko àddina taxoon a jóg kon mu déggoo bànneexi àddina yi waaye déggoohu rek ñoom su boobaa nag gannaaw àddina taxu koo jóg bul ko dem dégg àddina bàyyil xel li ko tax a li muy hikma ci boo nekkee caaj màkka mu bëri wiñ lay xaaye naan la xarmal da koy bañ gis bu baax a baax dañ la xaye yére ak lu yére fade fade mm-hmm. dootu dowaat lu la neex nga koy solee mm-hmm. dañ la xaye dindi tilim ak lu set baax baax ci jëmm mm-hmm. dañ la xaye itam dindi wet dindi kawar ak yooyu luñ mën a mën a xoyofal jëmm ak lu ak boo xoyofee ni nga amee kàttan ci yu bari yëpp dañ la koy xaye lu tax mooy nga xam ne lii haddi dina taxu koo Mhm. su ko tax a jóg mhm. kon dana déggoo yi nit da neexale haddinaam mhm. waaye déggoo wóor ak yi nit da neexale haddinaam na haddina taw koo jóg mu ko bu baax a baax noonu daal la demee noonu gis nga ko booy harmal mm-hmm. ñu ne léegi da ngay harmal ci gannaaw jullik farata mm-hmm. muy gannaaw jullik takusaan mm-hmm. kooku moom gannaaw mënoo fee julli mhm. te xarmal bi dafay topp julli mhm. julli farata gi ci nga koy mën a sasale rek mhm. wala ci gannaaw naafila na de ñaar rakk yoo xam ne benn bi kaafiroona la beneen bi lixlaas ci booy xarmal boo watee ba àggal itam ñaar rakk ay wëri na ñaar rakk yoo xam ne benn bi kaafiroona la benn bi lixlaas xam nga saaru kaafiroon tajrid la mooy futti kéefër Hmm. ba mu jeex tàkka la hmm. suratul ixlaas tawhid la hmm. nangu wax daaniyetul la waa mbir nang ci dindi àddina jagleel ko yàlla moom kenn loolu lañ ci soxla loolu la ci dindi àddina jagleel yàlla moom kenn moo wax ni xëy na yëfi bind kata ngi ci mu ngi jëfandikoo insa ndax adab lay jàngale waaye ay hikma yu ñor la nag ay hikma yu ñor a ñor a fa mm-hmm. rahima yàlla yërëm mm-hmm. allahu yàlla imran waaye safa joj sell na mu xabla mm-hmm. xabla masan o ci njëkk doxam ila safa jëm safa wa warada te mu root sariata rida sariat ku ñu gërëm ki muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabla suran yi ci njëkk soogum alal ada ci deq ba mooy sam-sam wa nasan te mu génn antal bi si ci jaxaseem xabla nasemal bosi yi ci njëkk summi lu ñu solam wa faada te mu babbu bi maaruf yi ak njëkkam mm. qabalal ifadati ci mm. njëkk wat ak ifada mm. min taarifi tukke ci arafa summa rafa topp mu yëkkati aqirataho baatam bi sawtin ci baat boo xam ne asmaa déggal na mu asumma way tax yi bi mu waxee dafa yëkkati lool ba di mu xiir ba yaakaar naa ne sax ko amul nopp war naa dégg li muy wax wakkaada muy jegeñ bi yu sension di yëngat Mm-hmm. aljibaala doj yi mm-hmm. asumma yu daway gudd mm-hmm. te law daal wax ji xiir na xiraay boo xam ne tuuti kon mu yëngal doj yi waan sada mu sadd ne mal hajju sayruka tawiban wa idlaja wala tiyamuka ajmalan wa ahdaja alhajju an taqsida albayta alharama ala tajridika alhajja la taqdi bihi ha haja wa tamtasika ila alinsafi muttaxidan radan lawa hadiyan walhaqa min haja qarantu wasiyama utita maqduratan hmm. man madda kaffan ila jadwaka muhtaja hmm. fa hadihi hmm. in hawatha hajjatun kamulat wa in qalal hajju minha kana ihtaja kon ñu jàng loolu mu ne mal hajju déet haj sayru ka desa dox mhm. tawiban ci téppéer lu hendoo dox mhm. wayit laajeen ak rañaan fanaanee dox mhm. du loolu mooy aji màkka de walaxte yaa mu ko du caageen sa tànn aji maalan ay gëlëm wut ay gëlëm yu ponkale yu rafet waax daajan ak i wut ay teg yu neex a toog du loolu mooy aji màkka de alhajju haj kay mhm. li ko do mhm. an taqasida mooy nga jublu mhm. albayta néegam yàlla bi alxarama ba de bu ñu hormaal ala tajidi ka ànd ak sag rafleel alhajja haj hajju kay buñ ko waxee mooy da ngay jóg jëm ci néegam yàlla ba te yàlla rek moo la fa tax a dem la tax di den ngay fajee bii jëm xaajan benn xaajo duut affaire wuuti la xam Mm-hmm. moo la fa yóbbu mm-hmm. du leneen itam ci poñete àddina mm-hmm. moo la fa yóbbu waaye da nga faa dem rek te yàlla tax watam ta tii te nga war mm-hmm. kaahilal insaaf joggaree sellal mm-hmm. te itam bi nga koy def nga bàyyi xel xaqi jaam ñi ci yow mm-hmm. bañ koo defee ci da ko yo yóbbaale mu taxidan mbiroom nga daa ji jàpp radan hawaa jajji ba neexu bakkan haadiyan mu daa ji gindi la te itam xaye giñ la xaye lépp lu dëppoog ba neexu bakkan ci jamono bi ngay joxe manasikul hajji nga xam ne luñ lay gindee la pour ne lii yëfi àddina taxul wa tamtati te nga war kahilan insaaf joggare sellal muttaxidan mbirom nga daaji jàpp radan hawa jajji bane ko bakkan haadiyan mu daaji gindi wal xaq nga jàpp min haajan muy yoon nga bàyyi xel ne mbir mi da nga koo teg ci sunna dëppale ak aqwalu nabi wala afalu nabi wala taqriratuhu te lu nga a lii nii la ko yonente bi santaane xoon nii la koy defee wala nii la ko yonente bi defee xoon kon ko roy nii lay def def mm. wala diw sàngam defee woon na ko nii mm. yonent bi àndoon na ci mm. kon lii loolu nii laa koy defee waaye su fekkee sa def def tegoo ko ci kenn ci yooyu nag ah daanaka loo def la rek mais tegoo ko fenn daal waantuwaasiya ak ngay dimbalanteer maa uute te fekk joxeef na la Mm-hmm. maqduratan man mm-hmm. man koo xam ne mm-hmm. madda tallal namu kaffan ténk muxtaajan biroom mu daaji haajo ilaa jadwaa ka jëm ci samay ak boo nekkee ci haj màkka bokki julit yu loru yi loo man ci taxawu leen nga de ko def te yàlla tax ndax nag bindéef yi ci ci njabootu yàlla lañ bindéef yi njabootu yàlla lañ te lu baax a baax te it xayrun naasi anfa'uhum linnaas luñ war a bàyyi xel la mm-hmm. waan tuwaasiya ak nga dimbalanteel mm-hmm. man ku xam ne madda tallal na mu mm-hmm. kappanteen ka muxtaajan mbiroom mu daaji haajo ila jadwa ka jëm ci sama yi bul dañ di dimbalanteeg ñu loru yi maa ootiita fekk joxeem na la maxturatan man gannaaw am nga man manam fa haadihi yii ñu wax ci ay xéene yu rafet ay jëfin yu rafet ci jaamu gi ay jëfini mandu mm-hmm. ci sa digganteeg bindee bi mm-hmm. ak ay jëfini mm-hmm. ci sa digganteeg ja njabootu yàlla gi yii de in hawat ha bu leen laqee hajjatun haj su fekkente ne xam na ci haj day ka mu haj ga mat na de mooy lii de bu demee ci bu dajee hajjun mabroor la te al hajjun mabroor laysa lahu jazaa'un illa al janna mooy lii de bu dajee hajjun mabroor la wayin xala bu féexee nag mm-hmm. alhajju haj min haj yi mm-hmm. su fekkee haj xamu ci nag mm-hmm. xamu ci nag kaana mu nekk ixdaaja de wàññee ko dafa mel comme xadaaj xadaaj mooy lu jur te xalaq xam nga juralu la loo amal njëriñ su fekkee na haj gi haj lool nag a ah, yëngatu yëngatu kese lay doon waaw ah, wayin xala bu féexee alhajju haj min ha ci ñoom kaana mu nekk ixdaajan de wàññeeku xada ci cosaan loolu baax na foofu ida hajjajta bi maalin asluhu danatun fama hajjajta walakin hajjati nayru fama hajjajta walakin hajjati nayru la yaqbalu llahu illa kulla tayibatin ma kullu hajjin li baytillahi mabrur hibati ma kullu hajjin li baytillahi mabrur إذا حججت بمال أصل ودمت حججت ولو حججت الهير هير مناسك الحج وانا ينغا خمنا تلا حج متى سو أمولي تحج مانك فنك borom aj gu mat gi nag mooy am bénéfice ka perte lay def hmm. moo tax ne xasbul muraa'iina hmm. annahum xarasu hmm. wa ma jana walaqoo kaddan wa isaaja wa annahum hurimu ajran wa mahmidatan wa ahlamu haddahum manaba aw haja xasbul muraa'iina doy na ñu di njistal xam nan ci naxu ne annahum ñoom xarasoo wama janaw mm. wala xool ñu dajee mm. kat dan coono mm. wayu naa leen ak sàggaroo seen dëkk mm-hmm. mu ne soo ko defee ci njistal pertement bu métti lay do mm-hmm. ndax yi wu ëllëg du ci am gannaaw sellaluñ ko mm-hmm. te da nga fere comme ni nga xam ne ñi sellal noonu lañ fere da nga tumaranke comme ni nga xam ne ñi sellal noonu lañ tumaranke da nga sonn itam comme ni nga xam ne ñi sellal noonu lañ sonnee léegi nag bokk te jëriñu jot ñu jël njëriñ wàcc la mm-hmm. xam nga pertement dëgg la mm-hmm. dëgg la xabul mm-hmm. muraayina doy na ñu leen njittal xam nañ ci naxu ne annahum naka ñoom xarasoo jëmbat nañ wamaa janaase du ñu kotti mooy ñi sellal lañ def ba am ci njëriñ ñoom def nañ ko wala koo ñi daje ka dal coono way sanjan ak tàggaloo seen dëkk waa annahum ak naka ñoom xuri bo xañeef na leen ajran fay mm-hmm. wa mahmidatan ak cant mm-hmm. du ñu am fay ak yàlla mm-hmm. du ñu am gërëm itam waa xamoo te lehal nañ ñattahum seen der manaa bu ku leen bëgg a yiibal aw aajo wala mu bëgg leen a ŋàññi te ñaare seen liggéey sax barke du ci am du saf nit ñi dëgg-dëgg liggéey bu àndeeg riya dafay waral du am xiima ci xoli jàmm uxayya ay yow sama mbokk fab xi na ngay hmm. bi maa ci li nga xam ne tuddi yaa ngi koy feeñal hmm. min xurabin ci ay jaamu hmm. na nga ciy sàkkoo wajal mooy mini jëmm yàlla bi dali jow mooy min mooy soyi li ngay def ci lu baax da ci jublu jëmm yàlla wallaa jëm doo ngay duggaa koon muy booy dugg na la fa yàlla tax a dugg waqarrajan am doo ngay génnaa koon mooy booy génnee waaw buy génn sa kër na doon yàlla rek moo tax génn buy dugg mag na doon yàlla rek moo tax ku xëy ee sama mbokk fab xëy na nga sàkku bi maa ci li nga xam ne tubdi yi yaa ngi koy feeñal min xuranin ci ay jaamu wajal mu xëy mi ni jëmmi yàlla mi daa ji teew walla jën duram ngay dugga koon wa xasaa jën ak ñu ngi dugga ko falay sa tax baa du nëbbu ala rahmaani ci borom bi mm-hmm. xaafiyatun aji nëbbu mm-hmm. nga xam bu baax ne yàlla mi ngay jëflante mm-hmm. sa dara humpu ko inna rabbaka la bil dara dara humpu in axlasa bu sellale alhamdu jaam bi ci taati ci topp yàlla sellal gën a buur yàlla humpu aw daaja wala mu def mu daaja mooy mu nifaax mm-hmm. nifaax dana bur yàlla mm-hmm. um bur yàlla mm-hmm. wa baadir te na ngay jëkkalanteer al mawta dee bil husna ci jëf yu rafet tuqaddimuha biom da nga ko jiital gannaaw yaa ngi fi ne xaale del góorgóorlu ci lu baax ndax dund bi am njëriñ dégg nga yaa man wa anta min ad-dunya ala hadari mu ne nga ne def te bàyyi xel wóor a dig àddina waalam bi annaka ba'da al-mawti mab'uusun nga xam baane gannaaw de dekki mooy am waalam bi annaka ma qaddamta min amali yuhsa alayka wa ma xallafta mawruus nga xam ne alal joo fi baax keneen a boo lekk la lay jëriñ Mm-hmm. mooy li nga liggéey mm-hmm. ci sa digganteeg sa borom wala dëgg bi wa baadir na ngay jëkkalanteer mm-hmm. al mawta dee bil husna ci lu rafet tuqaddimuha bi woon da nga ko jiital fa maa yu ne nawu dee bu fekk daaneel mawti aji woote jaa moom dee la in fa jaa bu bette ndax it la baaxoo te bett na la taxut mu dëpp wala yuwaxira llahu nafsan isa jaa bi borom su ñaanee ñu may ko fii déwén dañ ko naan loolu mangu su ne nañ ko may weer daf naan loolu dañ ko naan loolu mangu su ne nañ ko may semaine dañ ko naan loolu mangu su ne nañ ko may ba ëllëg dañ naan ko loolu mangu su ne nañ ko may kem waxtu dañ naan ko loolu mangu bu ne nañ ko may kem minute loolu mangu wala yow sallallahu nafsan ila jaabi amul yëfe dara dara gannaaw jot na moom amul mayee ci dara dara kama yu na na wu debu fekk mm-hmm. daaneel mawti aji woote jaa moom dee la mm-hmm. in fa jabu bette mm-hmm. waq na tawaadua xulqan la tuzayiluhu an kal layaali wala albas na kattaaja waq na na ngay kotti a tawaadua toroxlu xuluqan mu de jikko ak lu mën a xew rek na nga def toroxlu buy sa jikko torox lu duun mooy sol yoo tilim mm-hmm. duun mooy bañ a defar sa mm-hmm. mooy bañ a lekk loo baax ci mm-hmm. lu lim do mooy nga nangu ne ab jaam nga ci jaami yàlla de ànd ak nit ñi comme ab jaam ci jaami yàlla yi saa soo xamee ne dëgg dikk na itam nga nangu ko rek waaw ànd ak nit rek de wax luñ mën a rek de def luñ mën a rek nangul leen li nga bëgg ku la ko nangul rek التواضع هو الخضوع لله ولين الجناب لعباد الله وقبول الحق من قرينه loolu rek mooy tawaadoo mooy jikko jooju boo kenn tàggale yow waxana na nga kotti a tawaadoo a toroxlu xuluqan muy jikko laa tudayiloo bu ko dëñal am ka ci yow alla yàlla guddi yi bu la jamono wan lenn nag. ba tàggale nag jikko jooju. Hmm. wala albas nag ka doon coono day nañu ñoom guddi yi. Hmm. attaaje mbaxanaam buur su dee boo ñu ne yaay buur bi. Hmm. waaye tawa doo moom. fasalee ne muy sa jikko heure bu nekk. Seydina Omar radiyallahu anhu. ku ne xam ne fi mu ci tolloon. ak ji mu amoon ak baat mu amoon. waaye ku ne ne ni mu ràññee ko ci toog lu lool. wala sa sim te bul dee seenu. kulla xaalin wépp niir mm-hmm. woo xam ne laaxa mel na baari xoo mel a xam mm-hmm. bal def xin woo gis rek mm-hmm. foog ne yow la war a tawal waaw tel bu baax a baax lu ne rek nga foog ne man nga caa dugg bu ko def waaw lu ne rek nga foog ne man nga caa dugg lu ne rek nga foog ne man nga caa laaxa woo mel xam na bari xoo mel a xam ba def tin woo rek foog ne ndax war na laa tawar yow nit warul foog ne lu mu gis rek mën na jabo walaw tara a doonte feeñ na moom xiin wi xatuuna sag bi daa gis tegtale ci toflante ci sotti sa jaajante yoolaa kon doonte mu ngee taw sax ñoom war a tawal lay tawal doonte njëriñ ñu ngi ca sax. ña ca am cër ñoom lay seen njëriñ. nit su bëggee noppi kullu daayin di bépp aji woote bi ahlin di aji xeyoo ayu saaxa bu xeeral loo fa la wa jëm moom mm-hmm. bul yaakaar ne ku ne ee eh rek mm-hmm. war ngaa geesoo mm-hmm. loolu ko foog te lu baax a baax waaw bul yaakaar ne ku ne ee eh rek war ngay taxaw ma kullu daayin di bépp aji woote bi ahlin di aji ayu zaaxa bu xerew loo fa hmm. la way dem ci moom hmm. waaw bu toolee ku ne ay rek hmm. war naa tax yow nga taxaw di ko gër kam xal asam ma na bu taxalee day bi naa yéen ci tàgge waaw bax du man leen di ñaaja naajaa di yaale léeg-léeg faa la soxla nga dañaa sa mbokk deena faa la soxla léeg-léeg loolu neexul ma jaa topp rek wala soxla mm. loolu ne woon mooy daa topp mm. waaye am na ay yoo xam kum tax a taxaw da mm. ngaa rek moo lay tax a taxaw la biibu nit ku xelu si waa man ndara de koo xam ne baata fanaan na mu muxtane ante aji doyloo bi bulxatin ci bulxa mooy lu ko mën a jotal fa mu jëm tudri ji boobu mu taxañ al ayaama fan yi idrajan ak ak hmm. ki am xel mooy koo xam ne soo amee lu hmm. loola fa koy doyloo parce hmm. que yéen nag rafetal diggante moom yàlla loolu ku ko mel rek xamal ne xoomal na ndax bu dajalee wutit bakkan bi moom doyloo ngi ci rek wa xiinal nufoosi wal kafaafu mu ne koomal bakkan mooy kafaaf sol jot na sol nga lekk jot na yaa ngi lekk xam nga foo nekk Hmm. loolu nga doyloo ko gis ne man ngay dund hmm. nga doyloo ko di ci dund hmm. dara beta sa diggante yàlla di sàmm sa ngor loolu ku ko def rek xoomal nga gis bu baax alami jëkkee te moom faawa borom bi mooy wax yonent bi ne ko yàlla yàlla fekkoon na la nga di jiri moom la bàyyi moo la dalal yar la jaar ci tumaraag wajadaka dallan fahadaa fekkoon na nga def ko réer ko xamu dara mu gindi la wajada kan ilan ko awadan mu fekk la nga def ko ñàkk xamoo dara mu jox la koom jàngu ci siratu nabi tànn na nga fekk yonent bi dajale ko soxla jàngu ko ci siratu kenn kenn waaw da ngaa fekk yonent bi dajale ko soxla bañ naa risaas mu jàngu ko ci siratu kenn waaye xol ba ca la koy lu ne xol ba ca la doylu nekk yonent bi yarkatu gàtt la woon mos da romb téeméeri gàtt mosu ko nangoo romb mosu ko nangoo romb benn benn yoon gerte bi maa ngi ci téeméeri gàtt daa wax ne bu mu ko romb te téeméeri gàtt bëriwul asakaam benn gàtt rek la waaye mosu ko nangoo romb su fekkee sàmm bi dem na sàmm yi am bu jur rek dañ leen di ji waaye bu jur rek. leneen li ciy gaaw a gën a yéeme. xam nga bu dajale bu dara. waaye nee nañ moomal na. xol bu jëlee dara. jëlee bu baax a baax ba jàng xilaasaat. Ali Malik si wax na mu ne waqat hawaa mi atan saatan. yeneen ci yoroon na téeméeri gaal. walaysa lahu saydun ala al adadi mahdudi min waaye mu la defal muy lim buñ dayal na. ويتبع ساترانها إذا ولدت مكانها بهرة من دون ما وزني saa soo xamee ne daal am na ku jur rek ci taxaw dem ci dem noonu daan doxale noonu daan doxale te mën a rëy te mën a gaana boo doy doon noonu am nga koom wa man la bii bu dir ku xelu si waa man dara de koo xam ne baasa fanaan na mu muqtani an de aji doyloo bi bulxatin ci bulxa boo xam ne tudriju dana mu taxañ al ayaama fan yi idrajan ak taxañ fa kullu kudrin lépp lu bëri ak lu mën a ila kullin jëm na ci tuuti maxabatu mu jëm loo feeyee bëri da wàññeeku ba jeexal ci la mu wa kullu naasin bépp aji tëb mm-hmm. loo fi gis mu ñàng di tëbantu mu xumbu tor illa léegi jëm na ci nooy mm-hmm. ci nooy lay mujj mm-hmm. way naa ja doon te jeexee ko léegi da mu ne góor gi ku fonkoon gi daan na ko yomb wax mu ne góor gi daan na ko yomb ko kullu kursi ila kullin mahabbatuhu wa kullu naasin illa léegi wa in haaja su ko waxee nag li mu ko firee mooy yëngatu boobu di ci dal lay hmm. ah hmm. yàlla wax ma leen fasaa li daal hmm. ku gàtt wax la daal waaye wéy wéy na noonu la koy wax yëngatu boobu di ci dal lay ah te ñu mu ne góor gi daan na ko wéy waaye bu ko wéyee nag loolu la cee teg ah ba kullu kudrin ila kullin maxabbatuhu wa kullu naasin ila linin wa in haaja yëngatu boobu di ci dal lay ma ne loolu lay wax dégg nga loolu lay wax dégg nga qaala wax na arraawi arraawi aji solo ji te mooy xaari mm-hmm. mu ne falamma alqaa ba mu jurlooyee ba mu ngirteelee mm-hmm. ba mu ngirtelooyee mm-hmm. xoqamal afhaami way jërmiri xel yi xel yi dara ne wutoon ci xam-xam ba mu ci defee xam-xam bi séeréer kalaam ci ci njebee rek wax mooy ci wax ju fasaha istar waxtu xeñtu riha abi séeréer kàddu yi daal mu dikkee ba fii sama xel daal dem na ci almasih hmm. wa maa da jaayu hmm. biya ak man hmm. alistiyaahu sopp ilayi dem ci abu zeydi ay yamay din bu mu ci jaay tey doon suma xol xenu na ci moom lool yëg naa nim sa dajeg moom lool fa man kas ku masa ma toog bi ma حتى استوعبه مهما من فهمته من إكمامي ba xam-xam yam doon wax mu wax ko ba pare hmm. wan xadara mu wàcc hmm. min akamati yi tukkee ci barab bu yëkkati bu hmm. mu taxawat mooy jàngi ba mu wàcc su ma barab ci toog ma jegeen ci lay dem ci moom ma jegeen yaa tasafaal ngeen naa settantal tafaha ci mu hayyahu tasifa ak ma setantal hmm. jawharahu lahu wurusu takaayam hmm. ma dégg ko pour ba xam su dee moom hmm. la fa ida ci mbetteel huwa moom adallatun mooy réeri allati ji nga xam ne an suduha danaa ko sàkk ndege ki munu meral ma ne ngi dajeeg moom moom la wanaa limul xala idi moo de aji noose rangi allati yi nga xam ne an sadaha sadd na wuyu bu yëpp moo ko tànn. faanaxtu ma doqanteeg moom. xanaa xallaa mi kenn doqanteeg laa di alif ñaan bi. mu ñëw tëgaloog moom. ñu dend ba mel ni liif ak laaw. Mm-hmm. ni ñu benn. Mm-hmm. wa nazaltu ma wàcce ko manzilatal buri. Mm-hmm. wàcce waayu wér. problème am bi wasaal joo ma laaj ko ayola bi ma ni lu mu taxawal man saa ba mu bañ ma ne ko dama bëggoon ma dalal la su ko defee li ma yor man nañ di ci dund nañ ànd jaral na ma ko nga ànd ñëw du ànd kenn man ñëw du ànd kenn aw yu saamira nii walla mu ngaaxoo ak man walla boog ñu passé ànd ci war waaye attaqiba te du ma wuutuwante kenn al ixtiqaab bil haar mooy ñaari nit daño bokk war waaye bokk ci war benn jamono al ixtiqaab bil ayni mooy ay nit dañoo bokk war waaye waaye buñ war benn jamono kenn day war kii de dox buñ nee ba ca kanam mu wàcc ka war dox loolu mooy wala ak tasiba den muy faggu dara wala an tasiba den muy askan wala sabaxa den may sàkku benn njëriñ ci kenn wala uraasax den may àndaale kenn wala uraasax de du ma àndaaleel man koo xam du ma dëppool man koo xam ñu naa ko la dama ni faaw ak wàññi jaar dama noon xaj gi daal mm. moom yàlla moo ko tax di def waaw xanaa kii bi dafa ñëw waaye dafa daf ne ko nañ ànd mu ne ko man ànduma kenn li ma taxoon a jóg daal ci laa de nekk sooy boo nga toppatoo li la tax a jóg ah man daal ñëwuma fi pour ànd ak kenn laa de nekk summa sahaba topp mu dem mm. yu xaawilu di ñàkk mm. bi mu waxee dama jox gannaaw la ma jox gannaaw mm. ak waxu wu rëy waxaadara nii mu bàyyi ma wat wilu may wax wéylun manaan man de yàqu naa rek dañuy aboo sëriñ mu dem ma nii walam asal dañu ma aqri yi da ganale nazar yi sama xool ma teg ko ba de ko xool wa awaddu may ngéeju Mm-hmm. law yam si doo xam ala dansiri ci samay bët ma ne xellante woon sama bët bi dañu woon bi am wësa nin gaaw ndax bu ci tànkam bi tege mm-hmm. tegew mm-hmm. falam asal dañu ma xëri yi da ko ganale nazar yi sama xool mooy maa ngi ko teg ba di ko xool waa am si may waa wëdd may géeju law yam si doo xam ala dansiri ci sama bët xataa tawaxala ba mu héeg ba mu kowe hmm. ahadal atwaadi lenni doj yi hmm. ba mu àgg ci benn doj hmm. mu héeg ba ca kaw te mu taxaw bil mirsaat ci barabu fuglu lil haji ji haji mu taxaw foo xam ne dana janoo ñiy haj makk yëpp de def falamma saada ba mu gisee idaa rukbaani gaaw ak sett ci gawar yi cul hmm. kusbaan yi ci beñ yi hmm. bi mu gisee nit ñi ni ñuy dàqee seeni waruwaay di dem ci beñ yi hmm. waxaam mu dalal albanaana baaraam alal banaani ci baaraam dafa tëggalante ñaari loxo mel ni kuy ko watamaa mu jañ yunsur di sadd mu tàmbali de wéyli laysa man zaara rakiban misla saayin alal qadam la wala xadimun ata mm. anka asim min alxadam mm. kayfa ya qawmi yastawi sayubani mm. wa man hadam ba mu àgg rek laysa man déet nga xam ne saara nemmeeku na mu rakiban daaji war misla saayin demel ni aji dox alxadami ci ndëggu kii dem ci néegam yàlla ba tey demee war ak kii dem de dox Mm-hmm. bokkul xam nga kii dox mm-hmm. moo gën a doon kuy toroxlu mm-hmm. masabul imaami Malik ñoom haj war lañ ci tànn ndax yonente bi hajjatul wadaa dafa waroon ki na saafin yul masabi la moom sori yaari yi loolu la waaye masabul imaami Malik ñoom haj moom war lañ ci tànn ndax yonente bi dafa haj dafa waroon xam ne saara dox na mu mm. daaji war mis mm. la saayante mel ne aji doxalal xadami saara siyaare na nemeeku na mm. rakiban daaji war mis la saayante mel ni kuy doxalal xadami laa déerit wala xaadimun de surga ataaxa boobu nangu naa topp ka xaasin demel ni aji mooy minal xadam yi ci surga yi ñi bi ñëwee liggéeyal yàlla ka nangoo góorgóorlu ak ka sàggan duñ xem de kayfa yastawi naka lay yemoo yaa qawmi yéen samay bopp mm-hmm. sans yu baanin jëbi aji tabax mm-hmm. waman ak jëbi koo xam ne adama màbb na mm-hmm. xam nga kuy tabax ak kuy màbb bokkuñu mooy kuy defar ak kuy yàq bokkuñ walaysa alladi yabni kaman sha'nuhu lhadmu loolu la rek dégg nga kayfa yastawi naka lay yemoo yaa qawmi sans yu baanin jëbi aji tabax yow ma ak jëfi koo xam ne adama ma bën hmm. sa yuqiimu xees nay sax hmm. al mufarrituuna way sàggani xadan ci ëllëg hmm. ma saman na dam ci barab bu fii ku ñëw sàggane li la fi indi bu ëllëgee boo gisee fay ñu doon góorgóorlu rëccu rek ngay def wa yaqulu dana wax alladi ki nga xam taqarrabu hut naa jege borom bi hmm. ci ay yu baax hmm. ne tuuba texe hmm. li man ñaan na ka nga xam ne xadama nga génn ku hut a jege yàlla ci jëf yu baax bu ëllëgee dana kontaan wax ne lu baax daal léegi moo am way ki wanaa sa yërmande yaa nafsu yoo sama bakkan xaddimi jiitalal saalihan jëf yu baax inda fil qidam ko yàlla may borom ak jiitu mm. sa dundu àddina bi mm. na nga fexe liggéey ci lu baax mm. loo xam ne mooy doon sa denc boo xam ne boo taxawee amaam Allah dañ ne lii nga fi am dégg nga ak loo mën a def muy suxru rek suxru bu mel ni saalihul amali kooku moom xamul wa ida ftaqarta ila saxairi lam tajid suxran yakunu ka saalihil amali mu ne fekkee da ngaa bëgg denc ëllëg denc ëllëg bu mel ni jëf ju baax kooku moom xamul ila daxairi lam tajid zuxran yakunu ka salihi l amali dina ko baax a baax ki hoonaa sa yaa nafsu ay yow bakkan bi qaddimi jiitalal saalihan ay jëf yu baax hendasil may borom ak jiitu waxdari te na ngay zuxru fal hayaati naxaat ak dundu hmm. poñati àddina yi hmm. fa wuj daanu woo xamam hmm. adamun kem ñàkk la dara lobi ji daanaka lu jeex la la temps jabal mimma tara fa ka annahu qad saala anka sawala am si sayid wadda kiri na ngay masran al himaam narmelu waay hmm. isa xat bu hoo fat dee mbëmbëreem hmm. nga fàttale ko dee hmm. kum fat du mu daal wadda kiri na ngay fàttaleku masran al himaam narmelu waay dee isa xat bu hoo bu fat dee mbiram mu di sadama mooy fat bi fat dee na nga wantu bi na ngay jooy na ngay méttilu fian la ki sa jëf alxabiha judaa wasi xiita nga sottil la wo ñaal ko bi da min ji la rek sa jëf yu nga de ko jooyroo nga jëg tuub wat bu nga ko sébéj mooy na nga ko dab ko mooy wulli bi tawbatin ci tuub xabala hmm. ay yax lama njëkk bu yàquwaat hmm. ala demu der bi hmm. mu ne balaa der bi yàqu gaawal wulli ko mooy gaa bi bàkkaat bi bala romb loxo gaawal tuub fansalla xaj na yàlla ay yaqiika ba mu fegalaat la a saxeer a saxeer mooy safara allah si saxeer ma nga xam ne yanji na mu alhadam mooy siddatu istiqadin naar waaw mooy yanjeg safara yow ma la hasratun bis ba déet fakkatal tuqaalu défi ko xacceel wala yéen foo te du jëriñ asadamu riccu bu méegee ci kaw doj wi ko romb wa innahu topp moom amada mbatal na abba lisaani jaabi làmmiñam wanta la famu boyu lisaani yi jëm ci mbiram bi mu wéyee ba fii nag foofu la bàyyee wëyi daal di wàcc doj ah dem ci li nga xam ne moo ko tax a jóg daal commencé tu dañu ko attafakkatu defoo géndeeku Mm-hmm. waan tan du may dimbaliku mm-hmm. du man ci koo xam ne yoon su dugoo dana ko sab mm-hmm. wala ye ji du du ko fekk fi kulli mawridin ci bépp rootuwaay na ri doo danañu booloo mu arratin ak bépp tëttëtluwaay na tawas sa doo danañu ko gën a yor su ko defee fuñ escale fu ne dana ko fa laaj guddi sori ñu dafa tëttëllu yëpp dinaa ko ko jéema mën waaye mun naa ko fama surtout dañu ma fii kulli mawridin ci bépp rootuwaay nari doo boobu danañu ko root wa muarratin ak tëttëlluwaay na tawassadoo danañu ko ganaayoo dañu ma attafaqadoo dafa génne bu may dafa wut faa kidoo may ma waxtaan ji ba may dimbale ko bi hmm. man ci koo xam ne yow sudu oo dana ko sàkku mooy dana ma ko yóbbaane ma ko hmm. waaye fala ji du du ko hmm. xatta xeltu ba ma jot mu ne anna jinne jinne yi ixtata fadu fëkk nañu ko awil arda wala suusi ñu rob ko mm-hmm. wala jinne yi ko këf dem ak moom mm-hmm. waaye lii moom nit mënu koo defee mes ci biir nit ñi daal hatta xiltu ba ma jot ne mm-hmm. annal jinne jinne yi ixtata faggu fëkk nañu ko awil arda wala suusi ixtata faggu witt na ko lekk na fama kaabattu jànkuwante wu ma bil xur tumaranke mm-hmm. ka hadihil kurbati lu mel ni jaxase ni mm-hmm. abu seere seere gi mëri ci tukki mi mm-hmm. lu mu ko méttee musuma dal ci tukki wala mu niitu na toofuma fii safratin ci benn tukki du misliha ci kem lii min safratin ci fokkat kem lii mu duggee daal lu ma ko duggee musuma dal ci tukki wala mu niitu na toofuma bi sabgatin ci dox. bi misli ci kemam.